Coen Dara Dóo la tudd. rang ci bopp bi fi ñëwagul Sénégal mi ngi si Coen Dara Dóo Sénégal ñoo ko. jamonoy waale temps yi mu siy tool Wally Seck mi ngi doon way way wu yàgg séeri booy wuyuma wuyul ki lay woo sa téléphone so eh, eh jamono may toll di génne Ndeye Ndiaye Ndeye Ndiaye ba muy génne moom ah saa yi nii wax ay sama daal sama ñaar xarit yaa yóbbu ma yóbbu ma yóbbu ma ki lay woo sa téléphone barke si maa gën a ndey njaay temps ah maa ngi gën a ndey njaay ak ñu na ngeen def yéen gis jàmm ba alors sama gars yi namm naa leen nag yow nag gis laa gis sama kër bàyyi nga ma nag ah nga ah, soog nii xanaa tàngoor wi tax ah, man de maa ngi nii rek lii moom duma ko mos mhm. mais pardon ah. sa yére bi bëgg nga lii mhm. jaloore la ndaxte ngéntal Wally Seck mhm. coon kar la ma def fekk ma nekk Louga mun ne ma damaa am doomu góor. ne ma ñëwal. waaw lii laa solo. dëgg bi ñuy bi ñuy tudd Wally seek ndee lii laa solo. dëgg la kon Wally Seck faramaare la man ma man ma juddu nekk faramaare ma nekk ma mhm. man Thione Seck laa la àndal. isaay maa ngi faramaare. moom nag doomu jooju noonu. Ah. gerte bii laa la gisoon ko sol. bëgg sa bi nag. yow yaa ko ndeela pen ndeela pen la mënut. ndeela pen ak ak ak ak bi ñuy denc mm, kii Doudou Ndiaye Rose. Doudou Ndiaye Coumba Rose borom bu neex ba muy jaay góose góor ñaaw. yow yow yow yow nga xam talaa. père noppi la. ñooñu la oh, laaj yow moom bu bëri question xam nga actuellement nii mu nekk am benn feebar bu fi nekk. dëgg la dëgg la. feebar boobu nag ñu a laaj. feebar boobu ñu bëri xamuñu. président Macky Sall sax xamul feebar boobu lu muy jëriñ Aly Ngouille Ndiaye xamul feebar boobu lu muy jëriñ Bassirou Moustapha Cissé Lo mi Sonko mii di xëccoo réew xamul lu muy jëriñ. xam bi. ay ah! feebar boobu am na suuru 70 bu daa takk numéro 7 bi avant Cristiano Ronaldo kon xam nga li xam naa feebar boobu c'est lan sàcc turam feebar bi dañ ko amul dañ kaa fabriqué tuddee ko Coindirado. ci bopp bi. Ah, feebar bi Coronavirus doo la tudd. rang ci bopp bi feebar bi ñëwagul Sénégal mi ngi si Coronavirus Sénégal ñoo ko jël def ko coronavirus. Uh-huh. mais Coronavirus doo la tudd. kon xam naa feebar bi. dóoraat ko beneen. xam naa tere ah. am na téléphone bu yàgg bu ñu daan ko def xam naa téléphone bi ngay wax. wala boobu xool. gars yi ñoo yàq naan. kalgabet. Euh, waaw ah. kalgabet lan xool waxuñu kalgabet. kalgabet. Mm-hmm. waaw kan kan nga bëgg sa lay xatal est-ce que du picc bi la picc bi la picc bi la maanaam hamburger wul mu Baye Fallou Niang pour Baye Fallou Niang xam nga Sall Niang xam nga Sall Niang mais dama ma taay ma lekk man ak moom ay wóolu la loolu mburu la mburu la mburu gars yi ñoo ko yàq def ko téléphone naan karga bet mais mburu la sama xanam bàyyi yaa ngi gis meew. non pété sa yàq dàqal kooku yow. da ngay dem ba ñeer yow. booy man dama sa morom de. waaye bu ma tooñ da ngay dem ba ñeer dama morom. Eh, waaye du réew ma fenn waaye baax dañu wax ak moom waaye. bàyyi nga man rek. amul ko dama lay ñuus ba ma dugg dama lay ñuus ba ma dugg. bu fenee bul na ko fen nga nekk parce que rasulullah dama lay ñuus ba ma dugg. dina waxi mag waaw la dëgg mais pas yaa duul. Eh, père père. boo duggee ñu def maa la. yaa ko def. ay maa la bàyyi père. maalan yaa ko def yaa dul yaa dul. feer yaa dul maanaam. feer yaa dul wax ma yaa day. yaa laa bee jàmm garaawul. xeer laa mën na neex. bu ma sa xayma sa xeer. non dara amul xayma sa xeer seex. man gi léegi nii rek lañ sama daal yéen nag man dinaa ko yónni sama doom moo indi. man gi léegi nii rek lañ ñu. yow nga toog fii di duur rek. baal ko laa fee jaamu. maa ngi tàmbaay ñaq sa bàyyi ma daa ko dugg. dama koy bàyyi mu ñëw de. bu ko bàyyee.